علي يا متحلي يا خير والي أجب دعائي يا ذا الجلال يا متحلي يا خير والي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 Serigne Kosso Seye doon suñu jëwrin suñu lépp ci liggéey bi Serigne Ahmed daam Gueye ñu fas ne def rek benn ouverture bu gàtt rek jëmale ko ci bis bi nga xamante ne tey jii mën nañ ne mboolem axlu xasida Serigne Kosso teew nañ fi ngir dundal ci li nga xamante ne mooy xasida yi ci bërëb bii du ñàkk jëmmi bërëb bi Serigne Kosso ak it bis bi ngeen am ay jàngat yoo xamante ni biñ ci teewatee rek naka jekk jàngat yi ngeen ci daan am dina gën a yokk baax a baax a baax Serigne Kosso ok jërëjëf Serigne Modou fay ñu ngi santaat sëñ Touba bu baax ginnaaw boo xamante ni nuyu nañ mbokk yi ñuy seetaan yëpp. mën a nekk rek te doon ay taalibe ak ay jullit ñi ngi leen nuyu di leen ziar euh, di xam le ni euh, comme ni nga ko waxee rek barab bii daa bokk ci barab yi nga xam ni moom la Serigne Touba doon wax ni karamani fi mawdii bala di mu karramun bil am na safa di barab bii de barab boo xam ni ñaanu sëñ Touba gu nangu la waaye mi ngi nangoo ci jëfi taalibe muy barab boo xamante ni wax naa ne keroog bi fi Cheikh Mamadou Mountakha taxawee teg xeeru jumaa ji wax joojee mu waxan continuité lay doon ba kere yowmal qiyam dafa waxan keroog ca bis booba ni euh, suufus ndakaaru si day euh, jamono bi sëriñ bi nekkee doon yëg lam doon yëg ci digganteem ak noon yi ba wax ni ida ma salikal mabita la wax ni tey jii day barab bi keroog lu mu meroon keroog lu mu lu mu lu mu amal naqar am na ko mbégte tey bi ñu jëlee jumaay Serigne Touba ji di ko teg ci kawam loola nag continuité la ñan ñoo am continuité boobu mooy bokki taalibe ndax ñoo jël suñu alal ak sunu sunu sunu sunu sunu sunu jot lépp jaay ko Serigne Touba li nga xam ne lislaam naka jekk bi muy taxaw noonu la julit gi taxawan mu inna laa astara minal mu'minina anfusahum am amwaalahum bi anna lahumul janna looloo li ma ci jubloo firi mooy masaalikul jinaan murit yi ñoo dajale seen alal ba mu taxaw te mu bokk ci ñaani Sëriñ Tuubaa yi nga xamante ne mi ngi suttee ci Cheikh Mamadou Mountakha di ñaanal baax sëriñ Baara Mbacke moom sëñ Fallu ak sëriñ Sidi Muxtaar mi nga xam ne kenn dootu tudd Masaalikul Jinaan te tudd leen ak sëriñ Bakki Fay mi nga xam ne moo ko taxawu waaye liggéey bi communauté boobu mu doon nag dafa ajuwaat ci taalibe yi taalibe yi ñoo ma ay bisi xasida di ko fi andi taalibe yi ñoo fi defe seen i waaye taalibe yi ñoo fi ñëw di fi seen lislaam bis bii nag ki ko taxawal li sëriñ Laat Abi bokk ci ñaanuk sëñ Tuubaa nangu ndax sëñ Tuubaa moo ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu te amul dara lu gën a leer yeesal yootu yoonu yonent bi saa salaam jaarale ko ci ñàngaleem sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa bi mu waxee ne day yeesal lislaam wax ne ujaddidu tawxiida wal furuu'a maa tasawufin hawal buruu'a ku ne xam na ni loolu amul lu ci jiitu xasiday sëriñ Tuubaa yi sëñ Abdou Lahad Lébu nag yàgg koo taxawu taxawu gu am solo ànd koog ay kilifaam ànd koog ay bokkam waaye ànd koog ahlu xasida ndax bu ñu waxee ahlu xasida rek ahlu xasida la ñuy wax moo tax lii doon loo xamante ne lu ama am solo la loo xam ne tey jii sëñ Muudu boo ñëwee da nga mën a firi wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu soo ñëwee di nga ko mën a firi ci barab bi ndax ñëpp ñoo àndandoo doon benn bokk ak bëgg loolu moo ko waral innamal mu'minuuna ixwatun faslihu bayna axawaykum bala nga fay jógee di nga ko gis ndax loolu moom li ñu fi boole waaye ñaanuk seigne touba googu mu ñaanal te muy dugg ci bisi khasside yi muy wali yahab bi kulli harfin minha jamaatan khadimatan wasunha boo xoolee loxoy gaa yi ni ci xasida yi nekke bo xolé loxay gaay mi nga xamni kenn ko ne nga fexe ba khasside nga yor nga jàng ko waye ñongal ko lol day dugg ci biir ñaan googu te ñun nak damay wax ni tawfiq gën am seigne touba moy seigne touba mo wax ni waqadi xawaa aji la siina daamu fi khidmatin wa hablahu maramu te amul dara dara lu doomu adama di def di ca jariñu te liggéeyal Serigne Touba gën koo ëpp njariñ kon loolu daal mooy bisu xasida yi ñu ngi ci sant bu baax a baax di ñaan suñu borom defal tawfiq ak taysir macha allah jërëjëf sëñ Koso dinañ ci dellu si léegi moom di leen fàttali rek mu bokk ci ahlu xasida international bi nga xamante ni mën nañ ñëw fépp foo xamante ni ñu ngi fee taxawal na xasida wala lu jëm ci màggalu xasida mu bokk ci ñiy saytu loolu waaye dinañ ci dikk léegi ci kàddu yu s yi sëñ Ahmed Dame nga dégg fi sëriñ Koso sëy daanale ana ban jàngat ngay amaat ci bisu bu mag bi nga xamante ni tey mboolem murid yi nga xamante ñooy dund xasida kenn desul sëñ Ahmed euh, jërëjëf Serigne Modou waaye jërëjëf sëriñ Koso ñu ngi ziar bu baax ak a ñaanal bu baax mun Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ku wér day mel ne wax ji moom daa résumé boppam ndax ginnaaw bi ñu xamee tolluwaayu bërëb bi ak jëmm ji nga xam ne moom mooy def bis bi nga xam ne damay wax ne bisu taw féex la boo xam ne képp ku ko yëkkati ak foo ko mën di yëkkatee xamal ne yëkkatil nga Sëñ tubaa say woo xam ne dootu euh, tas ba mukk ndax day mel ne taalibe bu ci nekk sa digganteeg Sëñ tubaa war na la ci sant ko waaye war na la sant ci xasida yi ndax mbooleem di ñu borom Tuubaa bëggël da koo def ci biir xasida yi te miin nañ bu baax ci barabu borom Tuubaa bu mu ci mën di doon mooy ni ko Baye Aliou Diop di waxee jamono ji ñu nekk ne Serigne Saliou moo leen ko waxoon muy ñaari cat yi nga xam ne ñoo jàpp buum gi nga xam ne mooy buumu Sëñ Tuubaa te genn cat di de alquran genn cat di gi di xasida te ñu miin ci loolu lépp di moomee moomeelu borom Touba ndax day mel ne ab taalibe bu ñu nekk sa pas war naa dem ci ne bu ñee la lii sëñ Touba ko moomoon nga wagar ko fonk ko jàpp ko ba lépp luñ koy defal yaa cey jiitu te xam nañ ne sëriñ bi moo waxal boppam ni saa may na ma alxuraan saa jaay na ma alxuraan saa borom donduloo na ma alxuraan saa jox na ma téere bi yooyu yëpp di yoo xam ne misaal yoo xam ne day wane ne lépp lu ñuy moomee ci ak moomeel sëñ Touba wax na ne moomee naa ko alxuraan mallak te nii wax na ko awrasani yi wax na ko wax na kon yoy yep nga xamne mom moko mom ba pare di ñu waxat jëmmi alquran lim doon ci mom naan huwa shifa min kulli da liman alayhi atamada wa man abahu turida saa hasrati wa nadami lolé yóbbuwoot ci Sëñ Tuubaa ba ci histoire mënu ñu la xamne lal bi la Sëñ Tuubaa daan tëdd lal bu mësaam jaay nako jox ko alquran kon day melne ne bu ñu woote waatu bis ñu taxawat ci jàng alquran rawatina nag xasida yi ndax khasside yi sëriñ bi waxon na ne mbollem lima len defal ci khasside yi laa koy def ndax xali xalima gu ma yëkkati bay bindu bayit saa borom may na ma ci aw araf lu kawe sama njot waaye dama ko caa bàyyi ngir ñi jàng ji jàng xasida yi di dajeeg lool mu wax ko ne isaa katabtu aw xaraxtu xarfa xussu mu nan tuudaaw saakal xarfa kon day mel ne mbooleem njëriñ yëpp yi ñu Sëñ Tuubaa bam naan wabbiyee yan paxul wara lépp da koy dajalewaat ci biir xaside kon sëñ Moodu daal ci kaw gàttal mooy bisub sant xaside yi sant borom Touba jaaree ko ci xaside yi war na taalibe yëpp moo tax gis nañ ci bërëb mii nañ nit bàyyi ko na fu nekk ñëw ànd ak Serigne Abdou Lahad euh, ci bis bi nga xam ne mooy bisub euh, Masalikul Jinaan di bisub xaside boo xam ne laytaay gi yëpp mooy sant borom Touba. macha allah jërëjëf euh, Serigne Ahmed Dame Gueye ci kaddu yu tënk yu mat looy sëñ ko soo xam naa rek ci kaddu tënk rek mu mel ni fi ñuy daanalee day jëm ci bisu xasida yi nga xamante ni man nañ ne ren jii day mel ni lu lu jege yoo waaye day mel ni saa su nekk murid yi seen pas-pas ci xasida day mel ni loolu dañ koy romb ba saa su nekk duñ koy yëg loolu du ñàkk ngeen am ci ak jàngat ko Koso. waa kay eh, jërëjëf sëñ Modou xam nga ñun amuñu lu dul sëñ Touba te it eh, sëriñ beet xasida yi la am moo waral foofu dégg si xasida xam nga ni barki démb rek lañ jógee ci li nga xamante ne mooy guddi xasida eh, poroxaan gi. tey jii di Masaalikul Jinaan ëllëgin ñi ngi jëm faneen ndax li tax dafa bokk ci ñaani Sëñ Tuubaa yi nangu waxtu wu ne jamono bu ne ñuy sotti ay xasida ci àddina bi ngir xam nañ ne loolu mooy defar gi gën a gaaw ci li Sëriñ Tuubaa bàyyil nu ko fi loolu moo waral fu ci nekk da ngay gis ni bisu xasida yi dootul jeex mukk abadan waxtu wu nekk ni mu amee ci biir réew mi noonu la amee ci bitim réew macha allah jërëjëf Serigne Kosso Seye ci kàddu yu tënk yu matalo yi mbokk yi ñu nekk yéen ci lépp loo xamante ni am na fii ci Masaalikul Jinaan ci bis bi nga xamante ni Serigne Abdoul Ahad Mbacke ibnu Serigne Cheikh Abi mi ngi koy amal di ko ànd ak Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Sow bi lu fi am rek ñu ànd ko yéen kon ne suuti ak suñu yeneen élément على المتمم وكل عازم بلا اندعاء صلي وسلم على المتمم وكل عازم بلا صل سل وسلم على المتمم وكل عازم بلا